te ñooy layoo seen liggéey kon nangeen leen déggal ngir ñu mën a def seen liggéey ak xol bu sedd bañ cee am naqar ndaxte loolu du leen amal njariñ dee nu ñaanal wóor nanu ne sunu xel del na ndaxte danoo bëgg rafet ci lépp lu ñuy def maa ngi leen di xiir ngeen ñaanal nu ba tuur ci seen ñaq